maa ngi nuyu mbooloo bi ku nekk turam ak santam man la si Sidibé Sow ñu jàpp sama borom kër si affaire wàllu góor jigéen bi si loo xamante ne deful yëgul tinul parce que ñoo ko jàpp zéro heure lañ dajj suñu buntu kër ñëw fekk ko dèjà ñun boobu tëddoon nañ sax man après si laa ne man de jullaguma gee si laa génn dem jàpp ñëw di julli par la suite si laa ko fekk mu toog ma ne ko waa yow looy toog fii nii mi ne ma néegi dañoo tàng par la suite may julli noonu si laa dégg woote bi ma ne kii de du ma dagg sama julli bi parce que waxoon naa ko ne damay julli noonu laa déggee yeneen voix di naane ne waaye jaaral fii ngay naane faafaa jaaral fii si laa dagg julli bi daw noonu deux si laa ko ne waa el yow lan la mi ne ma xaw ma di si laa génn policier am policier bu taxaw si buntu kër gi téye buntu bi nii ma ne ko may ma jàll mi ne ma ñun la police sa jëkkër lañ des ma ne ko waxuma ak may ma ma jàll laa wax muy kii si laa jël bunt bi yëpp puus ko noon mu kii si laa taxaw si bunt robinet bi noon si buntu kër gi ma ne ko waa el mi ne ma naa ma ne ko yow lan la loo def mi ne ma xaw ma di ma ne ko xamoo te yow yu ñëw jël la xamoo loo def wanuñu la mandat dare wanu la convocation ñëw la xam nga ban heure a dèjà mi ne ma ah bàyyil wax ji nga dem si xale yi ma ne ko noo du ma bàyyi wax ji ma ne ko du bàyyi wax ji de li ñu def nii ñu ne ma mi ne ma si la ma dem ne ne bu ma jógulee après dañ may éliminer sama kanamu njaboot ma ne ko humiliation fu mu amee fu ñu dajee sa buntu kër dugg si biir kër gi foofu lañ la éliminer foofu noonu lañ la éliminer mi ne ma noo bàyyi wax ji mun ngaa bàyyi wax ji nga dem si xale yi si la dem par la suite man tamit si laa dem si xale yi bi ma demee xale yi ma ne xale yi delloo buntu kër gi ma ne tëj leen buntu peron bi fi laa dem kër nijaayam ma ne ñooñu de ah alaaj de police jël si na ko si lañ ñëw ñëw ba si kaw tali bi nii benn waay xàmmee ma mi ne ma waa yaay faal fooy dem guddi gi ngaa ngi wax rek ma ne ko man de sama borom kër lañ jàpp mi ne ma mbaadu ku ñuy yóbbu léegi ñoo ngi koy dóor dóor yu métti man na ko door mi ne ma waaw ñoo ngi koy dóor dóor yu métti man kay dem naa ba xàmmee ko parce que rasta yee tax ma ne ko kon moom la si lañ daar jël euh, taxi dem ba foofu police ñu ne ñu guddi na dem leen ba suba après ngeen soog a ñëwaat te yoo xamante ne par la suite demee di ko seeti campena trois mois quatrième mois si la si la ma ne ñun de xam nga lañ ñuy topp ñu ne ñu ñoo te góor jigéen bi ñun ñoo ko suli ñu ñoo ko taal mën na ko la loolu mi ne ma ah loolu lañ ñu toppee de ma ah, ne ko amina ma waaw ma ne ko kon yàlla baax na si loolu lañ nekk di dem ak a ñëw di leen ñu leen di yóbbu instruction fu ñu xam ñu jëm fa xam nga rek ñuy ñaan nag ku ñu dimbali te yàlla tax parce que loo xamante ne defuñu yëguñu tinuñu defuñu loo xamante ne war nañ leen mun a jàpp defuñu alaaji ku ko xam ku ne si koñ bii dem julli ji liggéeyi ñëw toog jàpp Mor Sandia Borom koñ ba sax bañ nañ ko ba ñu bëri xamuñu ko si koñ bi ñu bëri xamuñu ko si koñ bi parce que si euh, ginnaaw loolu noonu si ginnaaw lool noonu après man toogoon naa si la ma benn ku ñuy naan Pa Modou Sakho woo ma mi ne ma léegi da ngay ñëw ñu dugal LP ma ne ko ah mi ne ma waa léegi bi ñu demee mi ne ma da ngay dem bureau oh, kii Diouf avocat avoca bi seen avoca bi defe naa Diouf la tudd si lañ dem foofu ñu si nañ ñu ne ñu léegi dem leen camp pénal bi ñu demee camp pénal ñu signé foofu noonu par la suite depuis boobu nag dégguñu dara gisuñu dara man un jour nag tase naag avocat bi ma feeñu ko ma ne ko diw mi ne ma naa ma ne ko nanga def mi ne ma maa ngi fi mi ne ma yow de gañe nga ma ma ne ko man la ñu ñu jàppoon si euh, affaire góor jigéen bi man la soxna ala mi ma yéen seen LP bi est-ce que dugg na ma ne ko dugal nañ keroog bi ñu ñëwee foofu ba ñu signé ñu dem campagne naa ñu signé foofu si leen indiwaat affaire yi mi ne ma koo leen ko jox ma ne ko a ah, ñun de keroog bi ñu doon ñëw ñun deux femmes lañ fa fekkoon kenn ko ni man la toll keneen ki ku ponkal ki ma ne ko kooku lañ ko jox jeeg bu ponk mi ne ma xam naa ko bu ma demee dina dinaa ko laaj kooku wax ma lool noonu ñoo ngi si ñoo ngi sant yàlla bu baax ñoom ñoo ngi sant yàlla bu baax amaana ñoom ñun la ñuy xalaat ñun ñun ñu xamante ne si bitti ñoom ñun la ñuy xalaat wante ñoom ñoo ngi si jàmm baax a baax. ñoom yi nga xam ne dañ leen arrêté jàpp gi leen jàpp dañ leen jiiñ ne leen ñoom ñoom ñoo sulli góor jigéen bi ci armée li ba pare taal ko mu am ñaari angle yoo xam ñun en tant que activiste en tant que mouvement nitu dëgg ñun waa nitu dëgg li waral suñu ñëw fii dañoo bokk ci kuréel yi nga xam ni dañuy xeex wàllum góor jigéen ak wàllum jigéen yi jaay seen bopp ci réew mi lépp lu jëm ci wàllu valeur ak luy ñàkk Sénégal ci loolu la ñuy dox. bi ñu yëgee coow li ñun dañoo jàppoon ni ah loolu yeggul fenn maanaam coow am na si mais ku ci jàppoon it xëy na garde à vue la yam rek nga ñibbi sa kër. mais ñun yëguñu woon ni ndekete ñu jàppee ñi boobu léegi muy def juróom-ñetti weer bay dugg juróom-ñeenteelu weer ñi ngi si kaso bi loolu moo tax ñu jug ñun ndax ak ñun ay la yowén ñoom def nañ wala defuñu ki def ak ki deful loolu bu xëy na bu ko yoon di leeral ñun li ñu wër te wër mooy en tout cas ñun góor jigéen moom liñ ci xam mooy ñu taal ko ci bi muy dund xaaruñu bu ñu suul ko ñu koy suul di daal bi muy dund lañ ko taal ñun ndax yon ci alayhi salaatu moo digle ne góor jigéen na ngeen ko yóbbu ci àll fa gën a sori ngeen rey ko ngeen ko foofu bu ko ngeen suul fu ñuy suul ñu baax ñi ba am ñaari angle nag bi jiitu mooy lew na bi nga xam ni fa lañ suulee néew bi foofu la ku tedd ku mel ni maam asu jànk tëdd ak nitu yàlla yu baax yi ñu ngi foofu tëdd léegi nag bu ñu demee si angle boobu kese kese rek ndax yan woon maanaam Sénégal yéen yen ñëpp a que man na naa bu nekk di wax fu ne dañoo ëpp la kenn warul suuli néew kenn nangam mais damay laaj ndax kenn ci yéen moo nangu fu ñu suul kilifa gu toll nii waajuru Baay Ñas wala yeneen kilifa yu mel ne maam Xalifa Ñas ak ñeneen ak ñeneen ñu suul leen foofu noonu ba noppi ñu fay suul góor jigéen kuy taalibe maa nga nekk ci boobu noonu ndax di nga nangu loolu ak ban mer la mën a def si yow yàpp buñ ñu war a yàpp bu toll nii tey boo demoon Touba bis bu jot nga dégg Touba yóbbu nañ fa néew ñu woote ne néew bi góor jigéen la ñu dello siwaat ko ndax kii sax amaana dégg naa doon nañ ko bëgg yóbbu Touba ñu dello siwaat ko léegi nag loolu nag il faut en li tax li tax ñu war a def yoon ñu war a teg affaire yi maanaam li volonté populaire ñu ko respecté mooy ay tarixa dañoom am Sénégal te bari te ute ngëm-ngëm yi bari te ute te afam ku nekk dañoo war a respecté tarixa bu nekk mënuñu nag néew bi ñu yóbbu ko Touba ñu delloosi ko ba pare ñu bëgg ko suul leew tamit loolu tamit rafetul léegi ñun suñu taxawaay mooy ñun li ñu wax mooy ñun dañuy pour taxaw ñu bàyyi leen ñu bàyyi leen définitivement bàyyi leen bu ñu leen topp dara ndax dañ leen tooñ tooñ bi jiitu mooy ñu jël góor jigéen suulal leen ko ci seen sang yi ñu tëdd armée lu julit benn ak fu mu am asu ko fa loolu duñ ko nangu buñ ko sulliwul woon sax ñun ñiy taalibe ñëw sulli ko loolu mooy dëgg léegi nag amul négociation ñu négocier wuñ li ñu bëggoon rek mooy li ñu bëggoon rek mooy ngeen ah, maanaam askanu Sénégal yëpp xam ni ay doomu Sénégal ay jullit suul nañ góor jigéen ci seen wetu sëriñ ñu sulli ko xam nañ nag politique bi xew ci ngóor jigéen ci àdduna bi ak sunu étape yi ñuy def di neexal góor jigéen ñi ak di leen wan ni ñu ngi def ay enquête ak ay institution di ut lu neex góor jigéen ñi ndax ay subvention yu jóge fu ne ci àdduna bi waaye ñun peuple sénégalais bi dañoo déterminé ne du ñu accepté du ñu toléré ngóor jigéen te duñ ko toléré mukk te lii dooy na si ndax ku dee ñu sulli la di rataal ngay dund da ngaa war a laaxatu kon kooku toléré wuñ la donc message bi loolu la ñun ñu ñëwoon fi tey di préparer manifestation une grande manifestation boo xamante ni ñun ak waa Kaolack ak jeune Kaolack yëpp dañuy ànd jóge point A jëm point B def def jaarale fi nga ko a jaarale nag def déclaration dem préfecture dem ci autorité autorité compétente yi jox leen ko wax leen dañoo soxla jóge bërëb nangam dem ba bërëb nangam taxaw ñaxtu ak diir pour wax justice sénégalaise na bàyyi ñetti doomu jàmbur ak ñaari ñu mujjee jàpp ñu dem seen kër seen soxna yaa leen di seen waajur ak ne ay xale yu ndaw lañ ay 22 ans lañ am ay 21 ans léegi nag dama léegi nag askanu Sénégal bëgguñu jigéen waa nañ ko ci ana bu ne fii lu ne xew na fi ci góor jigéen góor jigéen danaan làqatu te tey góor jigéen dafa war a gën a làqatu léegi nag ñun jël nañ engagement du yàgg dara di ngeen ñu dégg incha ci doxu ñaxtu boobu ko def ak lépp lu mu laaj wasasala rasulullah waaw date bi exact xam nga tey dañu ñëwoon pour def visite alors on a préféré fexe ba au moins ñu mortaliser jour bi wax ak presse bi wax leen ni ñëw nañ fi donc membre nitu dégg yi ñëpp am nañ am nañ permis euh, leen aussi échangé nañu léegi ñun après dañuy waxtaan ak les familles xool yan ban moment mooy baax ak jeunesse bi jeune jeune quartier beeg ñi nga xam ne yeneen membre ñu tuddee Géeytu ñu xool ban moment mooy baax pour ñu mën def manifestation bi mais du yàgg dara du génn sax deux semaines incha allah ñi ngi ci jàmm ñi ngi ci conditions yu baax ba pare ils sont très forts parce que ku am iman ku diñ ku gëm sa bopp mooy jàpp góor jigéen ñu su se seetu sëriñ nga sulli ko ku ne xam yonent bi moo ko digle leen ko ngeen suul ko ca àll ba góor jigéen yëfi xaj la ku ànd ak góor jigéen xaj nga ku yëfi xaj ak xaj dañuy jàll ca xaj dafa yëfi xaj ah loolu kese amul leneen waaw jërë ngeen jëf merci beaucoup. diggante bi biñ ko defee am na ay ñu ne ay imam lañ ñu ne war nañ ko suul ci armeelu jullit. waaw contraire ak li nga mais en réalité mais en réalité mon frère xam nga déjà damay wax ma ne si ñaari angle laay wax bi jiitu religion nanguwul loolu parce que yonent bi dafa wax ni góor jigéen na ngeen ko rey te bu ngeen ko suul ci jullit yi loolu loolu xadis bu wér loolu ñëpp xam nañ ko beneen bi mooy mais hormis religion waxu même bu dul religion mais Sénégal dañu am ay valeur am ay éthique xam Sénégal dafa am lu ñu gëm amul benn religion du christianisme du ñi nga xam ñoo nekk ci bois sacré yi bu accepté homosexualité léegi nag lan moo tax ñu war ñu forcer ngóor jigéen ñun par force te ñun suñu suñu population société accepté wul góor léegi nag lii rek moo ko mën a faj nag ku ciy góor jigéen di ñu seetaan wala nga am ku lay jàppale wala am politicien buy jël sa xaalis na nga xam boo dee dañ lay sulli dañ lay taal wala cinq ñoom ñoom ñetti ñi ñetti ñetti ñi ngeen di wax ne da leen war a libéré. cinq lañ. cinq yi. am na ñeneen ñu leen jàppandooroon mais am na ñu ci may ay liberté provisoire waaw alors déjà xam nga mooy li may wax rek xam nga damay wax ma ne justice sénégalaise dafa dafa dafa dafa dafa dafa dafa comme li ñuy wax justice sénégalaise dafa doy waar dafa équitable lul quoi man maa ngi ñëw fekk chef de quartier bi nga xam ne moo nekk ci quartier bi moom dañ ko jàppale woon tëdd na ñetti weer te la ñu arrêté ko ne ko yow yaa doon commandité affaire yi di wax taal leen fii suuli leen fee te moom mag la wax na moom loolu defu ko alors ñi ngi ko takkal bracelet moom écoutez mais on est dans quel pays ñu jàpp ay gor yu set wecc ay julit takkal leen ay bracelet pour défendre ay góor jigéen pour xool lu neex ay góor jigéen pour pour lan ak ban autorité moo war a taxaw ji seetaan lii ak ban justice dañ am pour mu war a a jàpp doomu Sénégal di leen toroxal ndax ay góor jigéen sa waay lan la góor jigéen mën a apporter Sénégal lan la ñuy jàngal suñu doom yi tamit xeex boo xam yàgg nañ ko xeex yàgg na ba régime bi fi ñoom dañuy jëloon engagement ne bu ñu faloo dañuy def le tout pour ñu criminaliser homosexualité li si jiitu d' mooy ñi taxaw di xeex góor jigéen mais nga jàppale leen yokku leen doole mooy ñi nga ne ñi lu waaye dafa di jigéen Sénégal dara bañ la man dama xam pour man il faut ñu am tuuti respect ci peuple sénégalais bi du samay wax c'est-à-dire volonté populaire la góor jigéen nag problème sociétal la <laughs> xam nañ ko mais en réalité Mélenchon dafa ñëw taxaw mu ne moom bokk na si ñi dugal proposition de loi ci parlement français bi pour góor a góor mën a sim seen may ngaaññi du dëgg bi mu waxee loolu pour man yabeel weesuwul loolu nga ñëw taxaw ci kanamu askanu mel ni askanu Sénégal dëkku Serigne Touba El Hadj Malick Baye Niass ñu may la temps de parole dugal genre wax yu mel su doon mën a maa nekk place Ousmane Sonko dama naan kon dèjà góor jigéen ko koy defaan rek xaj nga waxuma góor jigéen moom de mais kii défendre góor jigéen rek di ko dooleel xaj nga kon Mélenchon xaj la góor jigéen ay xaj lañ kon Mélenchon góor jigéen ay xaj lañ waaye léegi xaj ak ñaari xaj dañuy ànd def seen yëfi xaj ca xaj ah, loolu laa loolu laa expliqué man Mélenchon pour ko waroon wax rek mu jeex quoi donc duñ nekk si yenn détails yi mais en pour tënk rek wax ji mooy comme commencé nañ combat bi te du yem fii léegi nag dañ koy def ci teggin nag teg ci yoon dem ci autorité compétente yi jox leen papier yi laaj yi war yëpp pour def suñu manifestation pacifiquement ci jàmm na leer léegi nag xool ndax ñoom ñi fi nekk di neexal góor jigéen ba tey wala dañuy ànd ak askan wi may sunu doom yi ñu génn fekk seen i njaboot jàngal doom yeggali seen i liggéey jërë maa ngi leen nuyu kenn ku nekk turam ak sant man la Mbatoma Camara di tàntaay Cheikh Guèye sama mag ko jur ñu Cheikh problème bi ba muy am. benn xaritam moom la abaloon Jakarta vélo de Jakarta boobu noonu fan yooyu gisul xaritam bi mu dem police di déclarer Jakarta bi ba mu demee police di déclarer Jakarta bi mu dajee fa benn femme femme bi gis ko mu benn saag mu ne ko saag bi maa ko moom avec boobu noonu su lañ ko arrêté ñun nag famille du jàpp ne problème saag moom la jotee ak femme bi bañ demee fi ne ñu ngi dégg ne dossier nangaan bi affaire góor jigéen bi si lañ koo classé ne moom moo doon suli néew moom moo kii te wax dëgg yàlla boo gisee ñu am fiti taxaw fii tey di wax en tant que yaay xam nañ ne suñu doom dossier boobu kii boobu ba muy am lakk boobu ba muy am kasak la nekkoon dañoo amoon kasak kasak boo xam ne tey jour même lieu fa lañ nekkoon kon dossier boobu bu ñu demee ba ko si classé di ko ci boole na ci la nekk kon ñun dinañu jaaxal lool te mu métti ñu lool dañu jàpp nañu affaire saag te bi borom dem na ba identifié ne saag boobu du saagam comme yaakaar na ñun a ñoo mën a libérer suñu doom ndax fu mu toll nii lii nekk na loo xam ne métti na trop ñu ngi def 9 mois actuellement yaayam sonn na te moom mooy taawam gannaaw yàlla moom la yaakaar moo doon kos dawal jakataa ñëw di koy dimbale te actuellement ay rakk la bàyyi ginnaaw fu mu toll nii suñ taxawaay bii nii dañuy ñaan rek nu ñu mën a dimbale libérer suñu doom bi ak ñëpp ñu fa xam ne moom lañ bokkal dossier bi loolu la ñuy ñaan moo ñu tax a jóg tey te moo ñu tax a taxaw fii.